لك معجزات أعجزت كل الورى yowmal qiyaam yàlla day wàccee jant bi ba boo yëkkatee sa loxo di ko laal laka mujizaatuna jasat kullal waraam ñéppay tiit kenn du ànd ak sa sago ndax tàngaayu jant bi laka mujizaatun ajasat kullal waraam jaami yàlla yépp tiit dem seeti yant yàlla isa ne ko kaay wax ak yàlla mu àtte jaam ay laka mujizaatuna jasat kullal waraam yant yàlla isa ni leen taluma leen sama bopp ñu dem seeti yontu yàlla Moussa ni ko kaay wax ak yàlla mu ne leen sama bopp laa ah, laka mu'jizatuna jazat kullal wara ñu ne leen bu ngeen bëggee yàlla àtte leen seeti leen ki yàlla rus di ko déglu jox ko léppam mu gënal ko ñépp ci jaam ñi muy Seydina Muhammad laka mu'jizatun ajazat kullal wara ñu dem fekk ko fa mu nekk ni ko yaa rasulallahi kay wax ak yàlla mu àtte jaam ñi bis bi daa metti laka mu'jizatun ajazat kullal wara pour moom balaa wax ak yàlla daa war a julli dafa kàbbar ni allahu akbar yàlla ni ko sëlmalal laka mujizaatun ko ca àdduna xam nga tey lu xew sal toxta washfaatu shafa laajal ma jox la taxawal buntu aljanna naan ñi la soppoon dugg leen ba doyal ma tëj ku sopp yaa rasulullah jazal kun lal wara njol ñëw fekk gardien bu ñuy wax ridwaan ci buntu aljanna mu ne ko caabi aljanna laa bëgg nga ko sama loxo laka mujizatun ajazat kun lal wara ridwaan ni ko dafa am ku yàlla ku ma yàlla déeyoon turam ne ma bu présenté woo naa ko jox caabi ji ni ko xamoo ma mu ne ko déedéet waaye am na ku ma yàlla ni woon bu waxee turam naa ko jox caabi ji est-ce que yow la laka mujizatun ajazat kullal wara sayyiduna muhammad joxoñ boppam ni ko ana sayyidu wulidu bani aadama laka mujizatun ajazat kullal wara maay sangu nit ak jinne maay muhammadu rasulullah laka mujizatun ajazat kullal wara man la bàyyu sëriñ saaliw di way naan ma antal karimu anal xadimu laka mujizatun ajazat kullal wara man mii la bàyyu sëriñ babacar si alaaji مالك جامبار جي دي واي لك معجزات اجزر كل الورى موي تخاو بنت الجنه نان انا اتي باب الجنه يوم القيام فاستفتح فيقول الخازن من انت فاقول محمد لك امرت ان لا افتح لاحد قبلك لك معجزات اجزر كل الورى سو بغي يالا بغ لا دا ngay بغ كي يالا بغ خمغا كو يالا بغ محمد رسول الله مصطفى مصطفى مصطفى سيدي مرسلين يا نخوي يالنا نوكا يالنا دولة شوفلو موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم